Bellingham ak Real Madrid xëccoo bi mu koy xëccoo digganteem ak Liverpool xëccoo boobee daanaka sériétul ndax kenn comme ci man di yaa ngi xëcc ci ji pour mu ñëw foofee waaye Real Madrid nag tey jii bu nu sukkandikoo ca journal yi nga xam ni ñoo nekk fële ca Espagne nga xam ne Marca ñu mën ko cee cité ak as yëglekaay ci seen suufu yëglekaay yi nga xam ne ca internet ba lan koy roof loolee ban ko génnee mooy kii di Bellingham Real Madrid tegaan na ci taabal ji beneen contrat boo xam ni tey jii Camavinga ngi la jël moom ci boppam jëmm Camavinga jox jox ko euh, équipe bi li nga xam ni moo nekk Dortmund euh, tegal ko ci téeméeri millions d'euros yoo xam ni daanaka muqus la boo xam ni moom lay boole ñoom ñaar ñëpp euh, pour jënd gone gii di Bellingham yéen ci commentaire yi ndax loolee kii di Bellingham jar na ko wala Real Madrid coûte que coûte nu mu mën a def daa war a jënd ki nga xam ni mooy doomu Angleterre bu fekkee loolu jaadu na ngeen def ko ci commentaire yi loolee nag mën naa gàtt tey tegu ci yoon waaye tamit leen mën a jàpp ci gone googee mooy militaire la boo xam ni donte seer na ku mucc ayib la ci wàllu football bi nga xam ni ma ngi koy joxe Bamba Dieng mucc na ayib ndax Bamba dina dem ca Lorient ga xam ne fi mu toll nii lépp leer na li ci des mooy mu jël avion di atterrir fële nga xam ni moo nekk Lorient vingt et une heures loolee bu amee dana fa signé contrat boo xam ne moom mii di gone ak sénégalais gi dana nekk joueur bi nga xam ne wala footballkat bi nga xam ne ba Lorient ne Lorient da tey mooy footballkat bi ci gën a seer kon loolee ña ngi koy xaar tey jii wala suba bu nu sukkandikoo ci journal yi nga xam ne ñoo nekk fële nga xam ne moo nekk réewum France nga xam ne daanaka loolee moom dootul information ci ñoom kon Bamba ñi ngi koy ñaanal tawféex ci li nga xam ni mooy nouveau aventure bi nga xam ni moom lay euh, belli nouveau aventure boobee tamit danañ ko ci ñaanal euh, cat bañ cee dugg ci diggante bi nga xam ni euh, maanaam xaatim contrat bi dana war am ndax jaaroon na ci lu mel noonu kon na ñëpp yor kursi ñaanal Cheikh Ahmadou Bamba Dieng